est-ce que gis ngeen flamme bii nii flamme bii nii mooy l'espoir espoir boobu mooy Ousmane Sonko. tey yéen da ngeen nangu loolu. kon taxawaay bi ñëpp xam nañ ko taxawaay bi mooy lan mooy se mobiliser derrière li nga xam ne.

dafa kontaan ci yéen dañu waxoon combat bi si ngeen soxla léegi tàmbalee mais Dakar day jeexee mais gëm naa ni suba lay jeex est ce que gëm ngeen ni suba lay jeex. donc suba képp koo xam ne demoo huit heures fële ci rond-point citoyen complice nga ci complot